mooy Bamba Fall yàlla dogal nag bi mooy ñeenteelu meer bu Médina yàlla dogal daayira yi nekk Médina daayira Sëñ Tuubaa yi ëpp nañu ëpp juróom fukk ñoom ñëpp mu leen daan toppatoo di leen taxaw bi ñu dajaloo nag doon génn kuréel maam Thierno mii doon seen jëwri léegi ñu doon génn wenn say mu am 1000 mètres yoo xam ne dafa nekk ca Gibraltar ca Médina ñeenti maire ba Médina amee ba léegi musta am barab bu ñu tuddee Sëñ Tuubaa wala barab boo xam ne ah, dañ koy dàkkantale kër Sëñ ba mu ko xalaatee nag def ko ànd koo murid ya nekk yëpp ni nag du ci def lenn lu dul ñëw jëbbal la ko ba pare am yéene defar ko mu doon kërug defarwaay woo xamee ni euh, sëñ Tuubaa ko moom mu ni ma man daal sëñ Tuubaa lañ ma tuddee ab taalibe laa te lii xam naa te tawféex yu ma sëñ Tuubaa defal la pàkk la boo xam ne kenn mosu faa dëkk te mu jege lool Ndakaaru te suuf sa fa mu nekk am solo lool moo xam ne lépp lu am solo wala lépp lu baax euh, euh, sëñ Tuubaa rek ko yeyoo lépp lu gën sëñ Tuubaa rek mu ni dinaa jël lii nag jox ko sëñ Tuubaa teg ko nga xam ni mat na sëkk nekkal fi sëriñ bi te mat sëkk sëriñ ndax ku jaar na fa xanoon xëy na amoon yéene ji waaye sëñ bi ci man la ko jaarale nag Mbàkke euh, taalibe yi nekk Medina yëpp ku ci xewle ci bisub cant da cay taxaw saa bu màggal musaana jot dina jël alalam dugal ci daayira yëpp te noonu la koy defee ci jullit fa nekk yëpp muy mbokki tijaan ya xaadir ak euh, ñu tudd ko sëñ baa waaye nam yore dëkk ba wala gox ba euh, ñoom ñoo waxal seen bopp ni kenn mësu koo yore noonu te ndam rek la bëgg Mbàkke di denkaane boppam ñuy dénkaane suñu bopp ñun tam ndax xam ne ni fii rek mooy dencuwaay bi kon nag mi ngi mi ngi mi ngi wax ni loolu jëf jooju daal lu ñaari junni mètre la mu jëfal ko Sëñ Tuubaa ñoom ñu kuréeloo ñoom ñu defoon kuréel tudd waa Abdullahi Xaadimu Rasulillahi di liggéeyal Sëñ Tuubaa muy muy muy lëkkale daayira yëpp ñu jàppoon le juróomi fan ci mai le cinq mai bii ngir teg xeer wa mu am yéene tamit liggéey. juróom fukki junni mooy addee mbooloo mi. dañ laa fekkoon la bisu xasida def midi naa nga ñaan mu fekke ko teew ca moom. jëmmal kayit wa ba mu ñu ñëw fekk leen fekk la ca kër sëñ Tuubaa wan la kayit bi nga ne ñu dem leen ci liggéey bi te wéyal naa leen ci ñaan ren bi jàppaat bis bi mu dëppoog mu ne am na yéene miire ko. defar ko jox Sëñ Tuubaa caabi ji bi kàddu googu duggee ci suñu bopp nag ñu ne dañuy ànd ak moom seereer la lam def te Sëñ Tuubaa rek tax ndax murit murit naa yëpp nag ba juróom benn juróom ñaar fukki quartier quartier lañ daayira yi ëpp nañ téeméer ñoo bokk ci benn buum tudd Abdoulahi Xaadimu Rasuul liggéey Sëñ Tuubaa loolu nag dañ koy seede dañ la koy seede yow bi nekkal Sëñ Tuubaa yilif na lépp ci sa loxo Mbacke. jërëjëf soog di la dégg. daal ñu ngi la koy dénk. Ah. Mbacke daal doon ziar. doon barkeelu si. ndaxte man sax Touba gi lañ ma ngénte. waaw samay rakk ñu ngi ci kër alaaji ak ñun Babacar ñun ci kër gi la ñu ne wante conseil municipal bi laa àndal muy teg Tijaan ñëpp ngi ci biir biñ ne ci yow lañ jëm si lam ni ni yow yaay kilifa dëkk bi di kilifa réew mi yëpp ñoom ñëpp dañu ànd ak man ba ci yeneen maire yi ñoom Babacar ñu nekk gëltaat ànd ak man ak jigéen ñi biñ koy bëgg nag amoon nay gàllankoor yu bari ñeenti at ak ni ñu ciy dox mais yàlla sottal na ko ñun li bëggoon nag mooy balaa sama mandat di jeex yàlla moo ma gënal lépp nag ndaxte bu meer bi dañee taalibe ngay des te taalibe gi bu desee dinaa mën a dugg ci kër ga nu ma neexee ñu bëgg nag le cinq bu neexee yàlla dañuy teg xeer bu njëkk bi doon sàkku na nga yónnee ñu fa ndaw rek mu teewal la ñu teg xeer boobu ñun taalibe yi nag des ci liggéeyi kër gi nga xam ne lépp lu ñu defal Serigne Touba foofu lay nekk ndax ndakaaru yelloo woon na ma am kër Serigne Touba gu mag nga xam ne bu ñu jógee tey ci jumaa ju bees ji ab dinañ fa am ay daluwaay yoo xam ni ku fa jógee dina am fu mu fanaan ak fu mu dëkk ak fu mu dal loolu lépp prévoir nañ ko fa ak alxuraan ji ñu fay jàng ak ay xasida ñu wax ñu gàtt loolu kese la. alhamdulilah. moo tax bi ñu waxee ni mu demee ko Ibrahima jugee. ma daal di xam ne loolu ci positif rek la jógee. loolu moo tax sax ma ne ko suñu àddu ñoom ñi nga xam jëwriñu liggéey bi nga xam ne jaay seen dund lépp jën ko jaay seen seen lépp ñu doon ñu nekk ci di xëy sëñ bi di ci kon di kon sëñ bi bi ma waxee posté boobu ak taxawaay boobu nag hmm. moo tax ma naa wax monsieur wax sëñ Atou ngeen dem daal foofu taxaw taxaw nañ ci bu baax baax sëñ taxaw nañu bu baax xam ne ñoom ñoo jaay seen dund ñu sëñ Tuubaa lépp di ko fay dañu bu mën a def ah, nga ko defee yàlla moom nga wax rek la sëñ Tuubaa rek la yàlla daan la ndokk bi nga xamee ne eh. nga li nga am sant sant sant nga si parce que ni ngay ko jëfe nii nga ko waxee loolu parce que boobu moom laa xamoon moo tax nañ la yóbbu jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke lu na nga fi yàgg te wér na nga fi yàgg lool Mbacke te dëgg la ñi mu àndal ñëpp sant na leen gërëm leen. ñëpp parce que leen tax a jóg eh, yéen leen tax a jóg yitte rek leen tax a jóg eh, nee na yéen ñëpp sëñ bi sant na leen gërëm mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax a a baax a baax tawfeex ne yàlla gàttal na leen tawfeex seen lépp yomb te yéwén te barkeel ne eh, seen lépp yomb te yéwén te barkeel ne loolu rek lañ leen di ñaanal ne wér ak gudd fan ak xéwal jërëjëf Mbacke. Fallou Diop électricien mu ne moom moom ñoo bokk benn yaay. waaw ah, Fallou waaw waaw ah, ah, Fallou mi nekk ci isbital xëy waaw. bismillahi yanmuluhaa'i bila manaahi wala intihaa'i bismillahi yanmuluhaa'i bila manaahi wala intihaa'i بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضرا قلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفوري وهو النسير منه فدائي لو اقترابي بلا اقتراب له خطابي مع اهتدائي لك ردائي لك سنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمحو دائي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ظن دائي زيارتي سرين توبا Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké mbégte nag am nañu ko ndaxte terte gi jiggi na niñ ko xalaate woon te vraiment xam nañ ni jotam bariwul waaye fexe na ba yaatal ñu ci nag ci ci gise bu yaatu waxtaan ci ñun woon ñu mbégteem ak cofeelam ci li ñuy def ñu koy sant yàlla bu baax li ñuy def mooy chaque 5 mais ci at mu nekk dañuy def journée Cheikh Ahmadou Bamba daaw lañ ko tàmbali bii nag comme hôpital bi ma tuddee woon Cheikh Ahmadou Bamba ci suba si dañu fay wàcce xasida jàng fa alxuraan mais ren particularité bi mooy dañoo fexe ba su la ñu mëbatoon am ren muy kër Serigne Touba ñu def ko foo xam ne ci quartier Gibraltar la le cinq bii nag ci di h ñu def pose première pierre bi ñu doon nag ñëw di ñaan si ndigal ak ñaan te lépp am nañu foofu particularité bi tamit mooy sëriñ bi daf ñu ñëw mu recommandé ñu ak aatu ak euh, isbu tarxiye yi xamuñu woon sax lu ko lu sabab loolu mais moom ci xalaatam bu rafet te bi ñu ñëwee lañu ko xam xam ne yoon bi ñuy jëm war nañu koo xam ne ba mu fa jaaree mbégte muridiyé bi yëpp la ci wàllum expérience ak ci organisation te bi ñu duggee ak sëñ aatu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñëpp bi ñu expliqué ñun tegu nañ ci yoon léegi xam nañu fi ñu war a jaar ba projet boobu mën a réussir ma ciy gërëm sëñ aatu Diagne bu baax muy citoyen sénégale bu am njëriñ bu liggéey ci yoon wi ay ati at di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla tamit isbu tarxe yëpp tamit li ñu mébét yëpp ci yoonu Serigne Touba yàlla matal ko di wax tamit ni ñun daal ñu ngi ci seen gannaaw di sàkku seen xam di xaar seen tegtal ndax fa ñu jëm tamit mën a mën a doon ci liñ ko foogee barab boobu daal li ci am solo mooy xale yi nañu am fu ñu jàngee parce que boo nee kër Serigne Touba Serigne Touba soxlawul kër gu amee lal ak booy nelaw boo déggee kër Serigne Touba rek fu ñuy defaroo la fu ñuy jàngee alxuraan yëkkati fay xasida n'est-ce pas éduquer fa nit ñi te tamit murid yi di fa daje di waxtaan ci yoonu sëñ bi yaakaar naa ne du foo xam ni dañ fay jaamoo yàlla kese la mu sori ñoo mbirum seytaane donc yooyu yëpp fas yéene nañ ko fa def am institut buy jàngale te li ñu gis fii daal ci Hizbut Tarqiyyah yi buñ ko xoolaatee daal ànd ceeg ñoom dinañ mën def lu noonu